أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala comme nun ko baaxoo def tey ba tey nu toll ci suura al an'am ci kàttanu borom bi tey nañ jël ñeenti aaya aaya 36 37 38 39 ñeenti aaya yi ñuy jël borom baa ngi ñu ciy jàngal ñeenti mbir ñeenti yooyu bu ci njëkk mooy al imaanu billahi wa rasulihi wa liqaa'ihi xayaatun wal kufru bi dalika mawt fal mu'minu hayyun wal kaafiru mayyit danañ jàng tey sunu borom tabaraka wa taala jàngal gim ñuy jàngal ne ngëm yàlla gëm yonent bi waaye gëm ne di nga dajeeg yàlla loolu xayaatun loolu day tax nit dund ab julit su gëmee yàlla ab julit bu gëmee yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye mu gëm ne bis mu ngi ñëw dina dajeek yàlla moom mu gëm day dund lan moo lay dundal mooy da ngay jàpp ci li yàlla wax roy yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam waajal daje bi ngay dajeek yàlla moo tax mu ne loolu xayaatun ak dund la moo tax gis nga aaya yi passé suñ ginnaaw lu mu wax qad xasira alladina kazabu bi liqaa illah ñi perte mooy ñi yaakaar ne duñ dajeeg yàlla waaye boo gëmee ne da ngay dajeeg yàlla rek loolu dafa am lu muy jur ci yow mooy lan la lay jural mooy da ngay waaj daje bi kenn ci ñun tey mbokk yi bu doon daje jeeg président de la république day waaj wala du waaj ah daf koy waaj daf koy waaj ci wàllu cet daf koy waaj ci wàllu col daf koy waaj ci wàllu xeeñaay daf koy waaj daf koy waaj daf koy waaj ba léeg-léeg sax su fekkee mënta wax dana dem ci nit jox ko benn kayit ne ko bindal ma samay aajoog samay nangam nangam bu demee mu def ko ci enveloppe lettre bu baax a baax a baax daal di koy jël daal di koy jébbal pour ñu xam moom ay mbiram waaw su fekkee mbindeef yu ndaw yii la doomu aadama di waajal dajeeg ñoom masamaak sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu kon gëm yàlla gëm yonent bi waajal daje bi ngay daje gi yàlla loolu xayaatun day dundal nit ak dund la waaye wal kufru bi zalika maw wal kufru bi zalika mawtun képp ku weddi lool rek loolu ak dee la julit bu weddee yàlla weddi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam weddi ne dina daje gi yàlla loolu rek dèjà ak ndee la lu tax kooku dee na parce que dootul jëf ci kaw suuf lu baax kaw suuf dundam dootul jag ndax ngëm yàlla mooy jagal dund nit su ngeen gisee tey dëkk bi mel nii àddina bi mel nii mooy ngëm yàlla moo fi wàññeeku rek loolu kese la su nit ñi gëmoon yàlla rek kon dëkk bi tey ni mu mel du ko mel waaye li tax nit ñi mel ni ñu mel mel na ay njaay yàlla njaay àll mel na ay rab li ko waral du lenn dul ngëm yàlla moo fi manqué moo tax ñàkk ngëm yàlla mu ne mawtun dee la ku gëmul yàlla rek da ngaa faatu masalu lladi yazkuru rabbahu walladi laa yazkuru rabbahu ka masalil xayi wal mayit misaalu kii tudd yàlla di ko jaamu ak ki nga xam ne xamul yàlla mi ngi mel ne ku dund ak ku dee ku dee moo ku weddi yàlla ñoo yem mu ne fal mu'minu xayyun wal kaafiru mayyit ki gëm yàlla fal mu'minu ku gëm yàlla kooku xayyun mu ngi dund lu tax ndax dafa dundal li nekk digganteem ak boroomam ki perte mooy ki ràppal digganteem ak boroomam mbokk yi tey soo fi bëggee nit yéen ñi amagul soxna su ngeen fi bëggee benn xale bu jigéen da ngeen di fexe seen diggante dund wala bu seen diggante dee
ñu fexe bu dund.
fexe mu dund ci wax yu neex jëf yu neex boo fay dem sax da ngay fexe leer neex suy ñëw ci yow mu def noonu gis nga yéen ñaar ngeen di dund wala soo fi bëggee nit sax sooy jëflanteeg moom da nga koy dundal imaginel nga ni man bëgg naa yàlla te sa digganteeg sa borom dundaloo ko est-ce que dëgg li nga wax dëgg la man bëgg naa yàlla te yàlla mun laa yee fajar te nga ni bëgg nga ko te yàlla jarul la yeewu fajar dem jàkk man bëgg naa yàlla jamais nga jàng alxuraan man bëgg naa yàlla jamais nga def azkar man bëgg naa yàlla jamais nga bàyyi lu bon te yow nga ni man bëgg naa yàlla yàlla moomu nga bëgg mu ne la bàyyil léeg-léeg benn waaye bu la bëgg ñëw rek ne la gis nga yow dama la bëgg mais lii rek moo tax af mu ne ah bàyyi naa loolu bàyyi naa ko ndeysaan léegi nag yàlla mi nga xam ne yow nee nga bëgg nga ko nag fal mu'minu xay jullit day dund ku gëm yàlla day dund waaye naka lu tax mu dund mooy dafa dundal li nekk digganteem ak boroom loolu moo tax mu dund wal kaafiru mayyit ku weddi yàlla da ngaa dee même booy dox da ngaa dee moo tax ci kaw suuf si dafa bëri ñu dee moo tax dund gi xat ki nekk ci kaw suuf xamul lan moo tax yàlla bind ko kooku dafa dee te dinañ gis si léegi aaya bi ci kanam nit bu nekkee ci kaw suuf te xamul yàlla xamul lan moo tax yàlla bind ko xamul lu muy def ci kaw suuf kooku mokk dee ñoo yem ñaareel bi mooy sababu taaxaru aayaat lan moo tax léeg-léeg ay nit daal di dajeek ay yonent sonnal yonent ya ne leen indil leen ñu benn preuve buy wane ne yéen ñi ay yonent ngeen yàllaa leen yónni bu ñu waxee loolu sunu borom subhanahu wa taala du jékki-jékki rek daal di indi loolu ñooñu laaj léeg-léeg mu def ko mais léeg-léeg mu yéexe ko ay temps yu yàgg lan mooy sabab ci loolu sabab bi mooy ilmu llahi taala bi annahum law ataahum al ayat ma amanu yàlla xam na ñii alaa yaalamu man xalaq wa huwa latiful xabir yàlla xam na ñii moo leen bind moo leen sàkk moo leen wàcce ci kaw suuf yàlla xam ne di nekk seen xol yàlla xam ne ne aaya yi ñuy laaj dañ koy laaj ni rek bëgg fu ñu potoxlu waaye aaya bu ñëwee sax duñ gëm duñu gëm qawmu saalih laajoon nañ aaya fu ñu mujj weddi qawmu aad qawmu tubba kuffaaru quraysh laajoon nañ saydina muhammad weer wi xar ko ñaar yonent bi xar ko lu ñu wax qawmu Moussa laajoon nañ Moussa rabbana anzil alayna ma'idan min as-sama nit ñi dañoo bëri lu ñuy laaj nangam de nangam su nangam boobu ñëwee ñu dangiral weddi moo tax suñu borom subhanahu wa taala xam gi mu xam ne ñii di laaj ay kéemtaana ki aaya bu leen yàlla wàcceeloon aaya yi tamit du nu gëm moo tax ñu laaj ko yenn saa yi mu téye ko loolee mu wàcce ko mu daal di koy téye moom yàlla tabaraka wa taala ndax xam na ne bu aaya yi wàccee dun gëm mbokk yi nun ni toog fii rek ñaata aaya la ñuy gis guddeeg bëccëg te gëmunu yàlla doomu aadama bu fekkee gëm na yàlla jarul muy muy jóg fi mu toog rek bu xoolee boppam day gëm yàlla wa fi anfusikum afala tubsiruun seen bopp bu ngeen xoolee rek gëm yàlla yàlla nee na sa nurikum ayatina fil afaq xata yatabayyana lahum annahu lxaq naa leen won man yàlla samay preuve samay kéemtaan ci horizon yi fu nekk fu ngeen séen saa yu ngeen siggee rek di ngeen gis sama kéemtaan buy wane ne yéen da ngeen maa war a gëm waaw doomu aadama su narul alku su narul sànku su narul réer su narul texee di ëllëg yowmal qiyaamati borom bi def na ci moom loo xam ne su fekkee yàlla rek moo ko tax a jóg jarul muy jóg di uti xam-xam fii mu toog rek mën naa gis boromam tabaraka wa taala wa bi zalika yastawjibuuna al adab maadaama doomu aadama yi suñu gisee lu leen war a waar lu leen war a delloo ci yàlla lu leen war a gëmloo seen boroom topploo leen ko dañ koy gis ne xujj xujaaral maadaama suñu gisee lu leen war a yóbbu ci yàlla duñ ko gis suñu déggee waaraate bu leen war a delloo ci yàlla duñu dellu kon yàlla nee na ma ma teg mbugal seen kaw foog ma mbugal leen ku jaamul yàlla yàlla dina la mbugal cooleeg bari rek gis nga Sénégal gi ñu ne am na ñoo xam ne mën nañ ñoo làq wala mën nañ ñoo denc wala mën nañ ñoo ramm wala mën nañu dox suñu digganteeg suñu borom ba yàlla duñ laal loolu ay waxi kese la foo ay làqatu ëllëg boo jaamul yàlla yàlla dina la làqarti caw la waaw Omar ibnu As bi mu làqee doom ji doom ji def ay tojaanga Omar ibnu Xataab woolu ko da ko booy ñëw àndal ak sa doom doom ji ñëw mu ne arab bi mu tooñoon fayul arab bi fayu ba pare mu ne ko dóoral papa ji mbolde bi ci bopp bi waaw ñamalal papa ji waa ji dóor papa ji bolde bi ba mbax na mi naaw Omar ne ko kañ ngeen di def nit ñi ay jaam te ba leen di seen ndey yi di jur ay gor lañ kañ ngeen di def nit ñi ay jaam te ba leen seen ndey yi di jur ay gor lañ woon kon mbokk jullit waaw loolu tukulóor yi di wax ñaamanam ñaamataako daanu na kam daanotaako ñaamanam ñaamataako de kaay yi lekk nga ni lekkaaleel ma sama wàll doo suur wala ñii nelaw kaay nelaw nga ni nelawaaleel ma sama wàll du sotti dafa am mbir yoo xam ne yow rek waaw jaamu yàlla yow rek kenn mun la ko defal kon su jaamu jotee jaamul yàlla moo gën nga naan man nangam ak nangam ëllëg am na fu may nëbbatu wala ëllëg am na koo xam ne kenn mënul làqatu fenn ëllëg rëcc lu dul ku jaamu yàlla laaj na hadis hadis la maa xaqullahi ala al ibad wa maa xaqul ibad ala allah lan mooy àq yàlla ci ñun lan mooy ñun sunu àq ci yàlla mu ne àq yàlla ci ñun mooy ñu jaamu ko bañ koo bokkaale terminé ñun ak yi yàlla yoreel mooy buñ ko jaamoo bokkaale wuñ ko mu dugal ñu aljanna leer na nañ wala du xadis waaw kon nag mbokk yi nañ leen bàyyi xel loolu ñetteel mooy taaddudul umam lim gi yeneen xeet yi limu fil ard wa taaddudu ajnaas mbokk yi xeet yi ñaata xeet moo am kan yéen ñi nekk ci jàkka ji dama leen di laaj benn laaj ñaata xeet moo am ci àddina bi ci nit rek lañ toll nag ñaata xeetu nit moo am xam ngeen ko kan moo ko xam ne yéegati loxoom yéen jàng histoire ak géographie ñaata xeetu nit couleur wala xeet ajnaas àddudul umam ay xeet ñaata xeet moo am suñu paree ci umam yooyu ñu ne taaddudul ajnaas ñaata jëmm ñoo am xam ngeen ko li yàlla bind ci ay jëmm ñaata la ah kenn mënu ko xam kenn mënu ko peeg xel xel tuuti na ci ci jàpp ko boo demoon ci melentaan yi rek ñaata façon la weñ yi ñaata façon lañ ci ndaw ndawaan yooyu ngay nekk sax yi ñaata façon lañ gunóor yi ñaata lañ ñëwagoo ci ay nit ak ay malaakaak ay jinneeg ay xarak ay nagak ay te benn boo fi gis rek ay façon façon la xar yi xoola xar yi rek ñun temps yi Sénégal lañ commencé xam ay ay laadum ak ay kër xamul du dëgg ginaar sax temps yi lañ commencé xam ne nekk am na ginaar bu tudd baramaan temps yi yàggul dara wala ay xeet façon façon yow lañ doog a xam temps yi ah ba léegi am nay dessin allahu akbar yooyu yëpp kan moo leen sàkk kan moo leen defar kan moo leen moom sunu boroom loolu rek day war ne moom mooy yàlla te xoole kenn mun ko kenn mun ko contrôler da nga gis ay pittax naawe États-Unis ñëw Sénégal Donald Trump nee na day tëj frontière bi na tëj boobu munu ko allahu akbar ah mun na boobu ne ko téye xanaa nit ñi la mën a téye waaye rabu àll yi reer yi mënu leen mënul leen dërëm dañuy dugg ne ko ñun xoolal ñun duñu américain duñu africain duñu ay européen ñun ay jaamu yàlla lañ kenn mënu noo téye moo tax suñu borom ne wa maa yaalamu junuuda rabbik illa huwa soldaar yàlla yi armée yàlla bi kenn xamu ko kurul moom mbindeef yàlla yi kenn mënu leen takk jël leen ay big ngeen xool ñaata mbindeef moo am ci kaw suuf jël leen te lu ci doy waar mooy ku ñëw di jàng ci loolu ci benn xeer rek ngay jàng mënoo xam lépp bés bu nekk ci xam-xam boobu nga jàng nga gis lu la ci jommal loo jàngul woon loo xamul woon bés bu nekk bés bu nekk nga gis ci loo ci xamul woon bés bu nekk noonu lay nekkee ila an yarisa allahu al ard wa man alayha ba yàlla doon suuf ak ñi ci nekk parce que yàlla moom moom àddina bi moo xam lim fi sàkk yow mënoo ko xam mara ñu ne kuy woote ne xam naa lépp wax ko qul liman yad'u bil ilmi marif maarifatan arafta shay'an wa ghabat anka ashiya kii wax ne man xam naa lépp wax leen ko tuuti nga xam wallahi li nga xamul moo ëpp kon ay umam ay xeet xeet xeet kenn xamul nu mu toll ah kenn xamul li mbindee fi yàlla yi toll waaye ajnaas jëmm yi te yooyu yëpp xaadiatun li tadbirillahi taala yëpp a ngi torox toroxul yàlla da ngeen yàlla mu ne sabbaha lillahi maa fi samawati wa maa fi l ard yàlla jàggul ne loolu beneen aaya mu ne yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi l ard be aaya mu ne wa in min shay illa yusabbihu bi hamdi yàlla nee na amul loo gis lu dul mu ngi may sàbbal man yàlla amul loo wax de amul wa in min shay amul benn mbir lu dul mi ngi sàbbal yàlla allahu akbar day gis ventilateur bi di lang fekk mi ngi sàbbal yàlla nga gis xobu garaw bi garab gi ngelaw li di ko laal muy dem de va et vient fekk day sabbal yàlla yow mbindeef mu ndaw mi nga lànk sabbal yàlla te yàlla nee na amul lenn lu ñuy gis ci kaw suuf si lu dul mu may sabbal waaw léeg-léeg nga dégg ginaar yi wala xaj yi gis naa xaj yoo xam ne suñu déggee bilaal yi di nodd dañuy répété lu bilaal bi di wax gis nga ko ah man de gis naa ko man man gis naa ko ñaari xaj su déggee allahu akbar rek day taxaw di wax di di ci di yuux ba kooku pare mu noot yow tamit gis nga ko yow tamit gis nga ko ah alhamdulilah alhamdulilah loolu yàlla moo ko moom mbirum yàlla la allahu akbar yow da nga yaakaar ne nag ndeysaan yenn saa yi xëy na comme déggoo làngam nga déggoo ko ci ñun ñu fii sax da ngay dégg benn waaye taxaw rek di wax la nga ne kii kii moom ci ñun ñu fii rek xam nga déggante wuñ moo tax kenn ku nekk comme déggoo li sa morom di wax du neex ci yow xam ngeen ne lii may wax lu tax mu neex ci yéen da xam ngeen lu tax parce que da ngeen ko dégg da ngeen ko dégg loolu du neex kenn du xam lu muy saf ah noonu ngeen déggee raw àll yi di yuuxu wala ñuy wala ñuy nga yaakaar ne dañuy mbeek dañuy ŋaax ak dañuy sab fekk dañuy sabbal seen borom ndax yàlla moo nu wax loolu kon xeet yooyu ñoom ñëpp ñu ngi toroxlul borom bi tabaraka wa taala ñu ngi yarul yàlla ñu ngi koy yarul moo tax ñoom sonnuñu xam nga yàlla moo ne wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi risquha amul lenn luy dukkat ci kaw su lu man yàlla maa yor wërsëgam bi doomu aadama lànkee ne yàlla man dooma dundal maay dundal sama bopp mbindeef yëpp doomu aadama moo gën a sonn mbindeef yëpp laa wax mbindeef yëpp doomu aadama moo gën a sonn ci dund hmm? mbindeef yëpp mbindeef yëpp amma mbindeef yi nga xam ne dañoo jox seen borom yàlla dañoo jox seen bopp yàlla yàlla moo leen di jox ñu lekk te am na yoo xam ne sax ci sa yaram bii la leen yàlla di yónni ne leen lekk leen ba su ngeen dem seen yoon waa ji dara la leen du munul hmm? ci sa yaram yow mii yàlla bàyyi ba nga tëdd di nelaw mu yónni yoo bi ne ko màttal ci xottu taat yi ba mu saf sap nga naan bu suut dem sa yoon wala weñ bi kazalik fel bi kazalik matt bi kazalik kan moo ko fi mën a jële ah sun borom ma koy jox mu lekk ba suur naan ba mandi ne la orawaar àddame ngay nelaw nelaw di xarañ ba suba ba ma ñëw ñeenteel bi mooy taqrir ruknul qada wal qadar wa isbaatihi fi ummul kitab sunu boroom dafa saxal keno alqada mooy dogal wal qadar ak dogu mbirum ndogal ci mbiru loxo yàlla la nekk mu la ñu wax alqada wal qadar mbir la moo xam ne nit ñi dañ ciy jéem a indi ay problème waaye amul benn problème ñaari mbir yooyu sunu borom da koo saxal fi ummil kitab ca lawhul mahfuz waaw jeex na tax léeg-léeg benn nit ne la lan moo tax ah yàlla dugal nit safara ndax waruloon dugg safara ndax lu bon li mu def yàlla moo ko def loo ni sax ngeen dégg loolu kon yàlla bu ko lakkee daf ko tooñ la nekk kenn ndax yàlla may kii man mayuma ah ah liggéey naa bëgg a dee awuma ay wax yoo xam ne waxu picc la amul benn saxuwaay bu dëgër ah yàlla tabaraka wa taala moom moom àddina bi wala moomu ko kenn amul tontu ku moom àdduna bi yàlla moo ko moom ñun ñi nekk ci àdduna ku nu moom yàlla moo nu moom ki la ki moom kay lu ko neex mu def ci li moom su ma moomoon sama kër ma bu ko toj di ko transformé def leneen ki kan mooy ñëw ne waa yow lu tax ngay def li amoo droit ah amoo droit ma ne ko waaw ma ma ma sama kër non non man boo ko moom amoo ci droit ah waaw kon ku ñëw di ma atteeg waa jooju lu mu koy wax waaye saa yi tamit nag yow tamit nag te nga dem tëddi nelaw nag ah waaw man ma moom sama yëf maa moom sama oto ma jékki-jékki ma ni couleur bu noir bi neexuma dama koy def bu weex bu weex ma dem waa ji ne ma noonu doo ko fi defee amoo ci droit ku may àttee kooku lu muy wax yàlla moonu moom boobu sax dafa sori suñu borom tabaraka wa taala waaw axi wallahi bi xeyr tey yaa ngi ni am ay ginaar seen kër am ay xar am ay am ay am ay nga am gan nga ñëw ne ah gan gi de dañ ko war a reyal wenn ci ginaar yi ginaar yi def délégation ñëw naa la amoo ci droit amoo droit laal ñu ah waaw yow daal li nga am droit mooy nga joxe ñu lekk suñu ci mare nga joxe ñu naan guddee nga ubbi kaaf gi dugg bu suba gi jotee bu ñu doon defee dal nga génn ñu mais nekk fi nekk di ñu rey nag loolu amoo ci droit voilà ah da ngay jommi nga ni waaw man yéen ku leen moom ñu ne yaa ñu moom mais nag amoo droit laal ñu ah kon kay moom moonu nga ni yóot waa léegi laa d'accord naa léegi yéen kenn kon du ma leen rey nga ni yóot nen yi ñu ne la léegi lu ba nga ne damay baxal ñu ne non non non non nen yi tamit ñu ne amoo droit baxal non noonu nga amee sañ-sañ ci say ginaar di lekk di baxal yenn saa yi nga togg ceeb yàpp yenn saa yi nga togg yàpp ginaar kese boole koog leneen lu la neex par façon plan bu nekk nga jël jaxase ginaar gi lekk du noonu ah lu tax nga koy def lu tax parce que yaa ko moom léegi yow yàlla moom la nga ne amul yàlla amul droit defal dara moom ah xanaa nga da ngaa ëpp ginaar gi doole kon nag yàlla moonu moom te gis nga sax yéen ñun sax ni ñuy jëflante rek rab yooyu yàlla du ko jëflanteeg ñun ndax wala yarda li ibadihi al kufra yàlla daf ñu bind bëgg nu jaamu ko nee na bëgguma ngeen nekk ay yéeféer bëgguma ko lu tax moo tax mu yónnee ñu ay yonent moo tax mu jox yonent yi ay téere mu bàyyi ay orientation ci kaw suuf jox ñu ay kéemtaan ay dalaayil yi wane ne moom mooy yàlla pour ñu gëm ko topp lu tax parce que bëggul nu nekk ay yéeféer kon aaya yooyu ñeenti aaya cheikh iqra lana al ayat innama yastajibu alladina yasmaun ila wa man yasha يجعله على صراط مستقيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم
mbokk yi sunu boroom subhanahu wa taala nee na innama yastajibu alladina yasmaun li wërtee mbir yàlla nee na ñiy tontu mooy ñiy dégg waaw ku dégg yaay tont suñuy woote mbokk yi ndax ku déggul woote gi di nga tontu ah إنما يستجيب لدعوة الحق التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن ويهتدي هم المؤمنون borom bi tabaraka wa taala nee na ñiy wuy woote dëgg bi woote dëgg bi nga xam ne ki ko woote mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba pare dégg woote bi gëm ko wuyu ba pare njub ci woote bi mooy way gëm yàlla yi mooy ñi ko dégg allazina yasmaun woo bu ñuy woo nit soo déggee nit kaa ngay wuyu wala fi dañ ne bala nga ne naam ne fa mais boo déggul nooy wuyoo kon yàlla ñi muy waxal ñu koy wuyu mooy way gëm yàlla yi ñoom ñoo mën a wuyu ndax ñoo dégg moo tax borom moo nee ne saa yu déggee yaa yolle si naa amanu taxawal ndax daf lay wax defal wala mu ne la bàyyi innama yastajibu allazina yasmaun ñi dégg ñi wuy mooy ñi dégg lan la ñu dégg woote kan moo woote muhammad mooy woote dëgg léegi nag ki dégg yonent bi di ko woo mu lànk ba ñu wuyu ah kooku la ngeen xam ci moom dëgg gi nga xam ne yonent bee ko woote waa ji ba mu déggee woote gi ndeysaan gis ngeen jinne yi ba nu déggee alquran lu ñu wax ah jinne yi ba ñu déggee yonent bi di woote lu ñu wax beneen aaya ba yaa qawmana ajibu daa'iya allah ndeysaan ci Sénégal am na ñuy jël wax boobu ne ñoo ko moom ba tuddee ko sax bis te jinne ya ko waxoon ndeysaan jinne yi ñoo doon dem dégg sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam di jàng alquran jinne yi taxaw fi jinne yi taxawoon yonent bi jàng alquran dañ kaa def jàkk tuddee ko masjidu jinn jinne yi dañoo ñëw fekk yonent bi jànguraan ñu taxaw ñoom déglu ñoom jinne yi ñuy déglu di déglu di wàcc di déglu bay buuxante ba bu ko daaneel ba ba ba laal ko sax yonent bi yëngu jinne yi ba ñu ñibbee lu ñu wax yaa xaw ma naa yéen sunuy nit ah yéen sunuy nit yéen sunuy mbokk yaa qawmana gis nga da nga yom sax ci ci nation yi lañ bokk ñun de dégg nañ wax joo xam ne ku ko wuyul alku nga dégg nañ wootekat boo xam ne la muy wax ku ko wuyuwul alku nga ñun de gëm nañ fekkee jinne yi ñoo dégg wuyu nag ma sama ak doomu aadama yi ndax ki yàlla yónni woon ci ñoom lan la doomu aadama le ni ñoom borom bi nee na wal mawta way faatu yi gis nga booy jàng alxuraan nga bu koy jàng comme ni ko mbokk bi doon jàngee léegi da ngay jàng da ngay fexe nga xam ahkaam yi gis nga innama yastajibu allazina yasmaun am na benn miim foofu ci fan ci kaw nuun gi boo fa ñëwee da ngay taxaw doo dem de da ngay taxaw foofu mu ne wal mawta yabasuhumullah ñi faatu yàlla leen di dekkil ëllëg yowmal qiyaamati ëllëg yowmal qiyaam ku dee yàlla dina la dekkil wal mawta way faatu yi ëllëg yowmal qiyaam yabasuhumullahu yàlla dina leen dekkil yàlla dina wax malaaka bi ëffal mu ëff mu ne yéen yax yu fënax yi kawar yu tasaaroo yi yàpp yu ñoppatiku yi jóg leen ku nekk fi nga tëddoon sa bàmmeel rek nga jóg faxasu naan man ba asana min marqadina haza ay waaye ñun fi nu tëddoon ku nu yee ñi xamoon xam-xam bi ne haza ma waada arrahman wa sadaqa almursalun li ngeen gis tey mooy dekk bi haza lii ma waada arrahman moom la yàlla diggee woon kon nag yonent yi yàlla yónni woon wax nañ dëgg wa sadaqa al mursaluun sunu borom nee na dinaa dekkil ñi dee wal mawta yab'asuhumullah summa topp ilayhi yurjaun ñépp ci yàlla la ñuy delluwaat amul kenn kuy wiiri dem fenn summa ilayhi yurjaun ñun ñëpp mbokk julli di nanu yëg ne bisa ngi ñëw lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg danañ taxaw ci sunu kanamu boroom amul kenn kuy manqué nit ak jinne tout le monde loolu ku nekk war nga ko bàyyi xel sunu boroom nee na ma leen dekkilee ci man laa leen di indiwaat summa ilayhi yurjaun mu ne wa qaalu gaañaa nga naan lawla nuzila alayhi aaya lan moo tere woon ñu daal di wàcce ci moom am kéntaan lu tere woon yàlla wàccewulul ci moom benn kéemtaan comme yat bi mu joxoon Muusa wala loxo bi mu joxoon Miisa Isa wala muy dekkil ku dee wala muy def la Isa doon def lan moo taxoon wala ñu jox ko gëleemu saalax lu taxoon lu tax lu tax yàlla wàccewul ci moom benn kéemtaan buy wane ne moom mii kat ab yonent la lawla lu tere woon nuzzi la ñu wàcc alayhi ci moom aaya aaya boo xam ne min rabbi ci boromam bi mu ne moo ko yónni lu taxoon borom boobu joxu ko benn aaya lu tax tontu leen gis nga li lay wan ne alquran du waxu yàlla du waxu yonent yàlla muhammad waxu yàlla la tontu leen qul waxal inna allaha yàlla qaadirun ku mën la ala an yunazzila mu wàcc aaya aaya mbirum aaya xaariqa takunu alaama ala sidqi buy wane dëgg-dëgg kéemtaan buy wane ne yonent bi ab yonent la yàllaa ko yónni loolu kay yàllaa ko mën bu neexee yàlla léegi léegi fii mu taxaw di wax yàlla daal di ko koy wàcceel amul sax demal ma dikk inna allaha qadir ala an yunazzila aaya waaw comme dekkil ku dee wala doxloo montagne yi wala wàcce malaaka yi léegi léegi nit ñi di gis direct malaaka yi ànd ak yonent bi di ko garde waaye nag walakin lam yunazzilha li xikamin aaliya wa tadbiril hakim lu tax sunu borom du ko def mooy xam-xamam ak xereñam ak xam ay mbiram moo tax moom yàlla du def loolu tabaraka wa taala waaye bu ko neexoon rek mu def ko ndax ay yonent jaar nañ fi seeni nit laaj leen ay kéemtaan ñu daal di wàcce waaye yàlla xam na ñii moo leen bind dañuy laaj ba mu wàcc ñu lànk te aw xeet saa yu ñu laajee ab yonent dara yàlla wàcce ko xeet wa bañ seen alkande taxaw na kenn du leen bàyyeeti virgule ñu dund dañ leen di alak ci saasi mu comme gis ngeen nitu Musa Isa ya bañ ne rabbana anzil alayna ma'idan min as-samaa'i takunu lana li awwalina après lan laaya ba teg inni munazziluha danaa ko wàcce de waaye cey ku ko weddi ba ma jàpp la gis nga rax laaj dara xeet yu njëkkee dañ ko doon def waaye yi ci ëpp yàlla da leen alak parce que dañuy laaj ba yàlla wàccee ñu daal di dummóoyu ñii nag sunu borom xam gim leen xam moo tax bi ñu laajee yàlla tabaraka wa taala wàccewul parce que xam na leen waaye bu ko neexoon mu def ko walakin aktharahum la ya'lamun gis nga borom bi moom moo xam waaye li ëpp ci nit ñi xamuñ walakin aktharahum la ya'lamun lépp ci ñooñu di laaj ay nangam ak i nangam ay demal dikkal ay def defle li ëpp ci ñoom xamuñu dañuy dégg riir mi rek daal di ñëw ànd ci borom bi nee na wa ma min dabbatin fil ard amul lenn luy dukkat ci kaw suuf saa yoo déggee daaba mooy kullu ma ya dubb alal ard min insaanin wa xaywaanin lépp luy dukkat dukkat ah umam la umam léeg-léeg nga gis doomu aadama yi di xeex mbindeef yàlla yi ci kaw suuf ne dañ leen fiy jële misaal di nga dégg ñu ne weñ ñi dañ leen war a jële ci kër gi fexe leen ko da ngeen leen a moom tey weñ yooyu umamun am saalakum yaa ak ñoom yéen a yem li la fi indi leen fi indi kañee dañ leen war a rey ci dëkk bi bañ jeex jële leen fi ndax yaa ko mën yooyu yëpp ay daaba la daaba mooy lépp luy dukkat borom bi nee na wa ma min daabatin fil ard gis nga amul lenn luy dukkat ci kaw suuf mooy luy dox nii wala taairun yatiiru bi janaahihi amul picc muy naaw ci kaw laaf ci kaw asamaan ak ay laafam illa umamun amsaalakum lu dul yéen ak ñoom yéen a yem ba képp gis nga doomu aadama fu muy ngand ngandul yàlla ne ko yaag sax yéen a yem kon kay yow amatoo maana yaag weñ wi yéen a yem ah da nga am tànk weñ amul tànk ah da nga am bët est-ce que amul bët da nga am bakkan est-ce que amul bakkan da nga am kër am na kër da nga am jabar am na da nga am doom am na da nga am pap am na da nga am yaay am na illa umamun amsalakum ni nga juddoo la ñooñu juddoo kon doomu aadama lu muy ngand ngandul lii rek waroon naa tax doomu aadama yem ngay ngand ngandul yàlla mu ne la yaa gunóor yi yéen a yem daal waaw yemal képp wa ma min dabbatin fil ard amul lenn luy dukkat ci kaw suuf xolal boobu suuf la wala taa'irun yatiiru bi janaahayhi du picc sax muy naaw ci kaw xam nga moom picc dukkatut fa nekk ci kaw di naaw yàlla mu ne illaa lu dul umamun ay xeet lañ am saalakum comme yéen ndeysaan lii la kuffaaru Quraysh déggoon ñu ne hii mais yàllaay Muhammad moo ñu yeb ñu nag weñ yi ñoo yeb non loolu mun ne ñun ñii ñoo yem képp nag ci borom bi da ngay dund ñuy dund ngay dee ñuy dee nga feebar ñuy feebar li lay dal mooy dal rabu àll yi voilà mooy dal yépp xeet ni nga amee kër lañu amee kër ni ngay jure la ñuy jure voilà doomu aadama yi sax ni ñu amee ay buur rab yi noonu la ñu amee buur ni ñu amee ay ren noonu la rab yi amee ay ren voilà mbooleem lu doomu aadama yi am rab yi am nañ ko wala gis ngeen lu nit am te rab yi amuñu ko loola la ah waay sawaay rab yi amuñu xel da nga naan yaa leen ëppale waaye am nañ da nga naan yaa leen ëppale waaye am nañ xel de bisoo xaj bi ñuy yónni marché mu dem duggi ñëwaat réerul réerul kër gi gisoo mu génn topp boromam kese nit ñi li ñuy bari bari waa ji kese la topp gisoo mu tëdd guddi gis sàcc di mboobu ku ko ne kii sàcc la a bañ a am xel suuf gisoo fas bi fas yi tëb gisoo leen gis naa ci télévision bi benn course gëléem boo xam ne gëléem yi kenn du ko war te xam nañ tuur yi ñuy daw dañuy daw ñëw taxaw sept tour la ñuy daw ñëw taxaw gëléem bi jël pia gis nga ko te kenn du ci yéeg dañ naan allez gëléem yi départ ku nekk xam nga sa bos gëléem yi daw ba tuur yi jeex ñu ñëw taxaw waaw dégg nga kii nee na parkaan ñu ñuy ànd ak yóbbu xale yi parkaan ah golo feccal ma golo bi di fecc feccal ma may la banaan mu fecc boo bañee may banaan mu ne nii taxaw di la xool am nañ xel de rab yi am nañ xel ax yi lan mooy problème bi mooy doomu aadama li mu peeg ci xel la rab yi peegut mais am nañ xel la ilaha illallah nga gis fi ay fas boo xam ne waa ji da koy far war di ko fecc loo muy fecc nga gis ñay boo xam ne nga gis ay nag nga gis lu nekk ah la nga merloo ko sa te xoolal gëléem boo ko boo ko defee lu bon dafay dafay fayu gëléem gis naa tey rek maa ngi woon sama soxna ci Facebook bi tey tey benn waaye bu dóor fas fas bi fayu këdd ko mu dali fële kooku moom laa dootul jóg bu fekkee ne image boobu ma gis dëgg la kooku kay pare na ci dundam ndax fas bi mu ko këddee ci oto la dal jaaxaan te moo dóor fas bi fas bi fayu waaw kon rab yi am nañ xel de doomu aadama amul lu mu amul te rab yi amuñu ko amul teral teral teral li ko yàlla teral yow doomu aadama nga da ngay sangu ba set sol yére ñu indi la lekk nga toog à table takk musuwaar ah yor fourchette yor kuddu di dagg ndànk di lekk ginaar gi boo ko defalee ci palaat da koy gësam mu dugg ci suuf si mu koy for xaj bi gémmiñam lay lekkee gaynde gémmiñam lay lekkee ah waaye yow da nga toilette di lekke sa loxo doo lekke gémmiñ tey bu ñu lay ni loon leer reer léegi ñu ne raxasul nga ni déedéet daal di dugal sa gémmiñ ci ñeex mi naan nii sa jabar ne waaw fi lu mu jël lu mu jëlee jàkka ja wala nga kon yàlla nee na وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم borom bi nee na maa farratna fil kitaabi min shay téere bi bàyyiwuma ci dara alxuraan a ngi nii bàyyiwuñ ci dara li ngeen di wëri mi ngi nii kitaabil maqadir umul kitaab allahul mahfuz lépp a ngi fa yàlla def dara lépp yàlla a ngi ko enregistré lawhul mahfuz dara rëccul yàlla tout ndax sunu boroom mooy aji péeg lépp wala yuxiituuna bi cheyin illa bi ma sha jàngeen yàlla mu ne wallahu min waraihim yàlla péeg lépp lépp yàlla nga ko enregistré dara benn dara dara xam nga looy woon na yàlla dafa enregistré lépp laaj naa leen léegi man leen nit ñi ci àddina bi ñaata lañ instant yi ñu toll nit ñi ci àddina bi ñaata lañ ah gaa yi ngi def ay sondage de waaye xam nga tax sondage yooyu du wérut ndax sénégalais yi sax da ngay ñëw benn kër ne waa ji ñaata doom nga am naan su booxul ma la kenn du wax loolu da nga naan ñaata bant ndax ñoom jàpp nañ bu ñu limee waa kër gi léegi ñu dee waa ji ne la ñett fekk mu ngi ak njaga njaay ndax dafa jàpp bu la ko waxee mu ngi mu ngi catu boppam yow loolu loo koy mu ne ñaata doom nga am lu ko wax di wala kër gi ñaata nit a fi yeewoo loolu lu ñu koy waxee ay nit bindal juróom juróom lañ fekk kër gi fukk ak ñeneen ñi des nag ah c'est ça le problème ba pare beneen bi mooy nit ñi kenn leen a mënta peeg waaye lu lay woon loolu lépp mooy borom bi moo leen peeg moom ndax mosoo dégg fii ñu ne diw mii moom yàlla da koo fàtte du dee kii depuis yoon yàlla nuuf la woon mu ngi nii toog dañ koo fàtte wax leen ma ban dëkk ngeen ko gis moom kay da ngeen dégg ñu ne am na téeméeri at téeméer ak ñaar fukk waaye après dee na ah waaye kii yàlla da koo fàtte kon yàlla da koo peeg du rëcc mukk wa ma antum bi mujizina fil ardi wa fi sama kenn du rëcc lu ci suuf du asamaan yàlla ne li ñu ci suuf duñ ma rëcc waxuma la ak asamaan kenn du raw wallahu min waraihim muy yàlla ne maa ngi seen ginnaaw wër leen ndomba ndeysaan booy bëre ba ñu wër la ndomb say supporters dañuy commencé wàcc tribune bi waaw mën na nga am nga daan nag waaye buñ la wëree ndombo rapporteur bi ne wër nañ ko ndombo xam nga ku ñu wër ndombo amul fu mu jàpp ah gars yi dañuy commencé wàcc te daan kii xamul dara yàlla nag mun na laa wallu ci diggante bi waaye léegi nag doomu aadama rek moo la wër ndomba yàlla nag moo nu wër ndomba nun te yàlla ñi mu wër ndomba yëpp tëral na leen te ñamu tëral kenn jógul Hmm? kon kenn mënu koo rëcc sunu borom nee na subhanahu wa taala téere bi bàyyiwuma ci dara summa topp ila rabbihim yuxsaruun ëllëg yowma alqiyaama yuxsaruuna ila rabbihim ñëpp maa ngi leen di dajale ci seen borom ñëpp danañ daje ci man walla lii rek doy na dañ daje ci borom bi duñ dem fenn duñ daje ci ma sàmba duñ baje ci ma demba yooyu ñuy dégg fii ci Sénégal ay caaxaan kese kese kese la billahi wallahi wa taalahi dama yóbbu ki benn néew ñu suul ko ba pare waajoo xam ne tëdd na sa waay lu tolloog ñaari at ci feebar sonn sonn sonn sonn sonn ba fu ne lañ dugg pour faj ko mu dee ñu suuli ko dëj bi nit ñi ñëw naan tam naaj kii diw yokk yóbbu na ko àjjana diw ki wa moo ko teeru diw di wax wax yoo xam ne ma ne waaw man sama problème mooy kii bi muy souffrir fii ci àdduna lu tax fajuñu ko lu tax kooku mën a yóbbaate àjjana kooku mun di walluwaate kooku mun munul woon ñëw dindi feebar bi ne ko nan ñibbi kër nga nga toog man damaa jël damaa jël sama chaise rek génn baas bi dem toogi fële waaw comme mun ma ko weddi ñemewu ma ma dem toogi fële am yoo xam ne xel nangu ko ku tëdd ñaari at tëdd ñaari at lu ne ñu dugg ko nga xam ne bu demoon hôpital sax buñ ko pikiiree rek pikiir day tàqali ko ak sago ndax pikiir yi ni ñu grave kooku nga am daay ko mu sonn sonn loolu ba dee léegi xam na ne mënut a jërëjëf léegi nag waaw gis nga diw la fay fekk diw moomu diw la koy jox diw moomu diw la koy jox amul benn problème moom kay yooyu yooyu dafa yomb. ñooñu di def loolu dañoo bëgg bu nit ki sonnee fii ci àdduna nan ñëw taxaw loolu moo gën a yomb di wala wala que ñu bàyyi ba nga dee ñu lay yóbbu ay ajana ñun balaa ajana xale bu ndaw bu am benn jabar nan ko bàyyi fii mu dund noos ci noos bi waaw man bu ma loolu ba balaa bu ay ba ma dee kaay fii nga indi ma fii ma dundaat tuuti mais non xam nañ gis nga ay caaxaan la dañuy bàyyi ba nga dee ñu xam ne kenn mënu ci tus ñu ñëw naan sàmbaak dembaak diw ba mu ci tolleeg ba ka diw yooyu nga xam ne ay léeboon ak léppoon la ku mun dara daal ci àdduna nga koy wane ba pare fekkee mën nga dara wane ko ci àddina bi ba pare nga doo koy wane àllaaxira ne man mun naa fa dara waaye àddina bi mënoo dara nga bàyyi ba nit ki dee ñu suuli ko waaw mbokkam yi jooy ba sonn mun ci dara ñu añ jot ñu lekk ceeb bi ñu ne la kaay wax nga an ma nga àjjana loolu naxaata la naxaate weesuwul loolu ku mën a yóbbu àjjana kay war ngaa mën dindi feebar fekk dindi feebar kay moo gën a yomb àjjana benn waaye mbokkam dafa dee kilifa gi ñëw mu ne gis ngeen kii wax leen ban àjjana ngeen bëgg ñu yóbbu ko billahi wallahi wa taala lii may wax bu dee dëgg yàlla bu ma génn jàkka ji maa ko dégg sama bopp mooy bis bii ma leen doon wax nii waa ji mu ne ñun àjjana waxuñu ay mbiram ndax ñun lañ fa am dañoo doyal xanaa ñu li suñu problème mooy kan moo bëgg a dugg ñu yóbbu la nun ñun doyal nañ ndax diw bi mu ne bi ko diw ne waxal loo bëgg mu ne ko man de dama bëgg ñu topp sama ginnaaw dem àjjana mu ne ko sa ñooñ danañ dugg ba jeex keneen doog a ñëw mu ne ñun kon jeex na ñun koy xam nga lu suñu problème keneen ku bëgg a ñëw ñëw ñëw ku bëgg a ñëw ah ñu ne xanaa ñun ñu daw laa xor kon seen ginnaaw ba pour dugg kon caaxaan yooyu rek kooku faatu ñu ñëw ñu ne wax leen ban aajana ngeen bëgg ñu dugal ko benn waaye ñëw ne salaamaaleykum mu ne gis nga kii mu doon yaakaaru seen famille benn kenn kott la woon lépp moo ko yore ay doom yu ndaw la am benn jabar la yor xale bu tuuti yaayam a ngi nii papaam a ngi nii dañ ko soxla yow kay boo mu nee dara dekkil ñu ko ñii bi loolu mooy wax bi balaa ngay jël kay naan dama ko yóbbu ay firdaws ak ay jannatu naim ak dekkil nu ko nu ñibbi waaw sëñ bi kat loolu xam nga ne kenn mënu ko biñ ko mënulee lan xam ne fële mënuñu fa dara wala affaire yi kay waaye nun noon nangu nu nax nu rek comme nun noon nangu nu nax nu nan nu nax ki laxas boppam ba mu dëgër ñoo ne la nax ma nga nax ko waaw jeex na tak sunu borom nee na wallazina kazzabu bi ayatina ñi weddi sama aaya yi sama téere bi ñi ko weddi ñooñu summun dañoo tëx bukmun dañoo muuma fi zulumaat ñu ngi ci ay lëndëm duñ génn ba yowmal qiyaamati foofu la ñuy dee dem safara ku weddi yàlla aaya yàlla yi wallazina ñi nga xam ne ismu mawsul la de kazzabu dañoo weddi bi ayatina sama téere bii sama aaya yi di alquran kéemtaan yi ñuy gis lànk ba ñu gis yàlla ñooñu summun borom bi nee na dañoo tëx moo tax ku wax duñ dégg bukmun dañoo muuma laa yantiquun duñ wax mukk fi zulumaat ci ay lëndëm la ñuy nekk laa yubsiruun ku nekk ci lëndëm ndax da nga gis doo gis borom bi nee na tabaraka wa taala man yasha illa ku soob yàlla yu dilhu yàlla sànk ko wa man yasha yajal lahu ala siraatal mustaqim ku ko soob moom yàlla mu teg ko ci siraatal mustaqim gis ngeen wax ji foofu loolu mooy alqada wal qadar ku mu soob moom yàlla ci coobareem mu sànk ko bu ko sànkee ndax dañuy wax yàlla da nga sànki non yàlla ci coobareem la moo xool kii dama ko war a sànk mu sànk parce que moo ko moom mooy boroomam moo xool kii mu soob ko moom yàlla mu teg ko ci siraatal mustaqim loolu misaal bu ndaw la yéen ñi nekk fii ci jàkka ji da ngay yaakaar ne seen njubug bopp yéen a jubal seen bopp dama leen di laaj tey naa man damaa góorgóorlu ah man damaa kii ah moo tax fal force damay ndax da ngaa def loolu yàlla la neex rek benn mbokk ja yaakaar la yërmande ne la mbokk nan dem nga déglu ji tafsir demee nga jéem a góorgóorlu nga ñëw benn yoon nga am loo dégg lu la lu la neex nga ñëwaat nga dégg nga ñëwaat nga continuer nga dem ba commencé nga xam ne kat man mii lu ma doon dund baaxul nga dëpp yàlla la neex am ñoo xam dañuy romb fii duñ fi dugg fële lañ jëm esaat am ñoo xam ne sax boo leen tàggoo ñu ne la sasaale wala dañ naan la fasaale ma rek kese doo leen mës a gis ci mu ngoog danaan ko aji kaan julli ji mu ne la waa fasaale ma saay saay yow macha allah demal te ñëw rek xoolal loolu kon nag attention ñooñu nag tey xam nga lu tax yàlla sànq leen xam nga lu tax ci coobareem la leen yàlla seetaan yàlla daf leen bàyyi ak seen bopp moo tax ndeysaan ku yàlla nar a alak daf lay bàyyi ak sa bopp bu la yàlla la bàyyi ak sa bopp rek nga al ko ndax dootu gis ay yoon ay élément yu lay indi ci dëgg yàlla bi moo tax yàlla bu nu yàlla bàyyi ak suñu bopp bis bu nu yàlla bàyyi ak suñu bopp nu al sama góor gi dana wax yàlla nañu yàlla xiir ci boppam yàlla nañu yàlla xiir ci boppam mbokk yi loolu mooy darsu tey noo ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu defal ñu dégg ak topp di jégg lu njuum tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu